la na moon de barke Serigne Saliou mais le centre du peuple lii lañ na non mais mais boogaa suñu waykat baa nii de non boogaa suñu waykat baa nii noonu de kii lañ na moon barke Serigne Saliou le centre du peuple le soir du peuple Wally Ballago Seck mais na moon nañ oto bi de mais frère na moon nañ la le centre du peuple soit du peuple macha allah mu ngi noonu mais boogaa boogaa suñu waykat baa nii de mais bu la bi laa na moon non booyee mu neex lu mu def mu neex bu dawalee mu neex bu ko bu non macha allah le centre du peuple soit du peuple dañ ko namoon mais Paris la laaloon nag de mais waxuma loolu de mais Nabou hmm? mais Nabou lan la wuti woon pari mu ngi toj dëkk bi non mu ngi toj dëkk bi Paris Paris Paris bi non pari bi non non mais Milan mais Milan bi la ñuy laaj kaay jegesil Nabou bi non mais Milan bi la ñuy wax lan la wuti woon Milan moom mooy toj dëkk bi essence du peuple barke Serigne Sall wax duma le centre du peuple mais boogaa wax duma le centre du peuple xam laa wax léegi le centre du monde non le centre du monde a ngi noonu non déggoo ma de barke Serigne Sall ki amuñ ci moom sago mais mon ami mon frère Fifty mu ngi noonu de barke alxuraan foo seen maar seen fi seen Fifty ko tam mais mais mais Moustapha ngi noonu ragaloo mais jinne xule équipe Wally Balago Seck a ngi noonu ragaloo mais jinne xule mon ami mon frère ndeysaan mais le centre du peuple mais Boga waxatuma la centre du peuple le centre du monde laay wax léegi ah. mu ngi noonu yéen na ko namoon yegg si na muy Wally Ballago Seck borom Paris. mu ngi noonu ndax nee naa la ci koor gi nag. Ah, barke Serigne Saliou ki nga xam ne moo di Idali. Uh-huh. Ah, Wally laal na benn ñeenti jours. non dëgg neexul barke Serigne Saliou. daal di nag mais Paris bi mais mais mais mais Paris loo fa wuti

C'est pour conclure la sortie de l'album. D'accord. mais tali bi mu ngi xeeñ de Torino. incha allah non wax dëgg la 14 mu ngi xeeñ de fi mu ne nii. mais tey est-ce que mën nañ la xaar nga joué ci match bi tey. mën nañ la xaar nga joué ci match bi tey. léegi score bi tey ñaata lay doon na Faramaane junior ak senior la tey. Mohamed joxe na 3. Mohamed lu mu wax. Mohamed doon na 3 mooy gën ci mbindeef. nee na nee <laughs> na dugal te day passe benn but. mooy gën ci mbindeef asalaamaaleykum. la famille na ngeen def mu ngi noonu depuis comme bi mu dem rek ne eh, tos mais ziar nañ la job lu bari wax tuuti moy tos mu ngi noonu macha allah mu ngi noonu di dugg ga ngi noonu di dugg ndeysaan ak fifty doomu ndey mais nami mais Moustapha ngi noonu ndeysaan mais suñu woykat baa ngi noonu le centre du peuple mais Cheikh ak ngi noonu mais le centre du monde lay wax waxuma le plus peuple parce que Milan jóge na Milan barki démb te yaakaar naa am na comme lu mu seet woon Milan muy publicité bu noonu def mu ngi noonu macha allah yaakaar naa at na yëpp di ko coow coowee. mais mayo baa ngi ci biir yàgg na. mais mais. mais mais boogaa. mayo baa ngi ci biir. mu ngi noonu di saafante. mu ngi noonu ndeysaan di saafante. mu ngi noonu Lille Pro ndeysaan. Ghali na na 3 mais passe mu ngi noonu la centre du peuple la centre du peuple le soir du peuple mu ngi noonu ndeysaan xoolal li mu def ndeysaan dañoo nekk ci kaw nag mu jóge fële nga xam ne mooy ndeysaan mu jóge fële nga xam ne mooy Milan am lu mu fa wuti woon nag Dakar naa àdduna yëpp a ko coow coowee macha allah li mu demoon wuti. yakarna ben benn publicité bu mu def yakarna naa yakarna kon wax duma centre du peuple mais le centre du monde la demé mu ngi non di daw té du yomb ndaysan fit Dakar Sacré-Cœur mais suñu woykat kat ngi le centre du peuple le soir du peuple mu ngi noonu Wally Ballago sek mais nak mu ngi noonu Benjamin mu ngi noonu le centre du peuple le soir du peuple mu ngi dafa joxe mu ngi solo waaw mu ngi yaram bi mu ngi noonu di tàngal yaram le centre du peuple soit du peuple le centre du peuple soit du peuple mu ngi noonu tàngal yaram bi ndeysaan mu ngi noonu di tàngal yaram bi mu ngi noonu di wax ak Mouhamed ndeysaan mu ngi noonu di wax ak Mouhamed ndeysaan mu ngi noonu le centre du peuple soit du peuple Wally Ballago Seck mu ngi noonu mu ngi noonu ànd ak Mouhamed le centre du peuple mu ngi noonu le soit du peuple mais dama naan le centre du monde la wax parce que ah barki dem la demoon nag ah fi nga xam ne mooy Paris Milan benn pour benn publicité yaakaar naa kon nag man dama doon le centre du monde laa koy wax man man waxatuma la centre du peuple la centre du monde laay wax léegi mu ngi noonu ndeysaan jóge fi nga xam ne mooy Paris barki démb ci benn publicité kon mu ngi noonu ndeysaan Mohamed a ngi noonu Mohamed Mohamed a noonu paas na papaam mu ngi noonu mais mu ngi noonu Boga mu ngi noonu waaw waaw mu ngi noonu Fass nag xam ne papa mu ngi le centre du peuple le soir du peuple cey Wally cey cey suñu way kat bi cey le centre du peuple le soir du peuple le soir du monde le pan non barke alcorane wooye mu neex foolee mu neex barke Serigne saliw mu ngi noonu ndeysaan le centre du peuple li moy Sénégal le centre du peuple le soir du peuple mu ngi noonu ah en vraiment c'est beau hein machallah c'est plus beau hein oui mais vraiment c'est c'est plus beau tel père tel fils dama déggul français nak boy mu ngi noonu ah way mu ngi noonu billaahi Mohamed euh. suñu woykat bàyyi noonu le centre du peuple le centre du monde laay wax parce que barki dem ngeen fa mu jógee ndax benn publicité rek macha allah mu jóge fii ba Paris macha allah kon yaakaar naa gis nga kon xam nañ kan mooy woykat bi mu ngi noonu macha allah seex a ngi noonu jaajëf. ndeysaan léegi xam nañ kan mooy woykat bi le centre du peuple léegi leer na le centre du monde kan la mu ngi noonu Wally Ballago sek ndeysaan macha allah mu ngi noonu Pogo ngi noonu te nag muy match boo xam ne macha allah. ñu génn terrain bi ah d' accord jaajëf mais mon ami dugalal tey waay <laughs> cum ñu ngi noonu kon xam naa rek ñu may leen rek ñu fubal instant yi nekk macha allah te nag yaakaar naa match bu mu neex lay doon match bu laa daw mais macha allah mu ngi noonu. ma chauffé wu pare nañ de. mu ngi noonu ndeysaan Faga Marien yaayu noonu fii ci Dakar sacré mu ngi noonu ginnaaw bi mu jógee Paris macha allah ci publicité fële ca mu ngi noonu dañu war a def benn mu ngi noonu mais équipe bi war a tey macha allah muy euh, Faga Marien Senior ñu ngi noonu mu ngi noonu mais tey. tey du yomb de muy noonu Benzema ngi noonu mais amul fii amul riita mbala fii de doom day tey fii ballon bi de tey di ngay amul fii de non mais ma tey amul riita mbala de non mon frère tey amul riita mbala tey bal bi fii tey Benzema li ngay riita tey tey ballon bi la de tey amul riita mbala waaw pour muy leer mu ngi noonu yaa ngi wàññi wàllu def ay affaire mais mooy loolu ah yaa ngi dambale man maa ngi fële ca micro ba micro door mu ngi noonu. mais Paco lu ne la Paco joueur la Paco joueur la Paco entraîneur la Paco arbitre Paco man moo may yéem yéen ñi xaar yéen mais mu ngi noonu ñu leen ah, xaar ngeen paree ñu génn pare ngeen léegi ñu li nga xam mooy match bi bàyyi leen si démarré match bi génn leen waaye mais mais nu mu demee noonu presse bi fuñ màbbee presse bi fuñ màbbee presse bi fuñ màbbee mais presse bi fuñ màbbee ñii fuñ màbbee dégg nga ndeysaan le centre du peuple le soir du peuple Waly Ballago Seck mu ngi noonu gis nga macha allah ñoo dañoo màbb bàyyi seen football ñëw fii mu ngi noonu mais mais génn leen ñu football génn leen ñu football nag kaay leen kaay leen ñu football nag kaay leen dem kaay leen génn leen